Bonjour, euh, chers auditeurs de FM. Merci euh, de nous accueillir euh, comme tous les samedis euh, dans cette émission. Nous recevons ce matin euh, Monsieur Abdourahman Khan. Il est le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal. Bonjour, Monsieur Khan. Euh, bonjour, euh, Madame Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin dans l'encre et la plume. Merci, le plaisir est pour moi. Une première, je dirais, depuis votre euh, élection à la tête euh, de l'US, l'Union Euh, des enseignants euh, du Sénégal. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Abdourahman Khan. Euh, Abdourahman Khan est un Sénégalais qui a eu à Sénégal. Mm-hmm. Donc, euh, je suis euh, enseignant, de mathématiques de formation. Mm -hmm. Donc, j'ai débuté C'est par la suite avec euh, le syndicat qu'on nous a mis au niveau de la DRH, mmh. de la direction des ressources humaines mmh. du ministère euh, de l'Éducation. Mmh. Avant mon euh, élection comme secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, J'étais le chargé des finances le secrétaire général de la coopérative de l'US, okay. la Choez. Oui. C'est en 28 décembre 2021, après notre congrès, que j'ai été porté à la euh, de ce syndicat qui est l'Union des enseignants du Sénégal. Euh, Monsieur Khan était déjà les affaires euh, lorsqu'il a été euh, la tête de formation euh, dans le syndicat, n'est-ce pas Tout à fait. Je dirais même bien avant le syndicat, avec le collectif des professeurs euh, vacataires, où j'ai été membre du bureau de la, région de Ziguinchor, membre du bureau régional. J'ai été le régional de la, au niveau de Fatigue avant d'occuper le poste de chargé des finances et secrétaire général de la coopérative au niveau national avec euh, l'Union des enseignants du Sénégal. Mmh. Voilà donc il s'agit là euh, du portrait d'Abdourahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. À la tête de ce syndicat depuis euh, décembre aujourd'hui, quelle est la feuille de route route de cette nouvelle équipe, justement La feuille de route euh, qui nous a été assignée au niveau euh, de l'Union des enseignants du Sénégal lors de notre congrès, mmh. dans un premier temps, c'est de mettre l'enseignant à sa juste valeur de tout faire pour que l'enseignant soit respecté mm -hmm. et qu'on sache que c'est euh, pôle de développement. Tout développement passe par un excellent, vraiment, système. Mm -hmm éducatif. Mm -hmm. Et là, nous pensons que pour qu'on puisse y arriver, il faut que nous soyons mis dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Et cela commence. Quel est le constat euh, C'est-à-dire que l'enseignant ou son statut est dévalorisé aujourd'hui C'est vraiment malheureux, mais c'est le cas. Il suffit. Euh, euh, d'écouter la population, les gens dans la rue. Dès qu'on parle d'enseignement, ce sont des qualificatifs vraiment très, euh, péjoratifs et c'est vraiment regrettable. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui donne ce qu'il a de plus précieux à des enseignants, à savoir ses enfants, se mettre à critiquer ses enseignants. Ça, vraiment, c'est vouloir une chose et son contraire. Un, un, un apprenant qui ne peut pas respecter, donner de l'égard à son enseignant, ça m'étonnerait vraiment sortir du lot la tête haute. Mmh, D'accord. Et euh, à part cette revalorisation du statut de l'enseignant, euh, d'autres mm-hmm. plans justement que vous assigne euh, votre mission aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez aussi, il y a le cas des décisionnaires. Et nous, nous jugeons que c'est vraiment injuste que des gens soient recrutés dans des mêmes conditions et que vraiment qu'il y ait un poids de mesure. Mm Là, c'est difficile et c'est vraiment exécrable à notre niveau. D'autant plus que nous savons que le FNR a des problèmes présentement. Regardons autour de nous. Il y a combien de fonctionnaires Ils ne sont pas nombreux. Alors que les décisionnaires sont là très nombreux et ça se comprend. Le privé, il, il verse au niveau de l'IPRES. Les contractuels versent au niveau de l'IPRES. les, les euh, décisionnaires versent au niveau de l'IPRES. Donc, le matelas financier de l'IPRES est, est surliquide. Mm -hmm. Donc, nous, nous aimerions que tous les décisionnaires soient versés dans le corps des fonctionnaires et qu'on essaie de voir comment fusionner l'IPRES et le FNR. Et du coup, on règle le problème. D'autant plus que, vraiment, l'argumentaire est là. Beaucoup d'enseignants ont été recrutés mm-hmm. dans le système avant le 35 ans. Mm mais du fait qu'ils ont duré la vacation, ils dans la contractualisation, leur formation a tardé. Ils ont après 35 ans et ont fait de, des a la validation des années de vacation de contractualisation. Nous, nous proposons à que ces années qui ont été validées soient mises au pour mettre cet enseignant fonctionnaire. Je m'explique. Mm -hmm. Quelqu'un qui a été à l'âge de 38 ans. Après reclassement, on lui valide 5 années. C'est-à-dire, 5 années de vacation et de contractualisation ont été validées. Ces 5 années aussi. Mais pourquoi pas les, ne pas les soustraire mmh. de ses 38 ans, il va se retrouver avec 33 ans, et avec Ça, c'est une des solutions que l'Union des enseignants du Sénégal, Inch'Allah, portera au devant de la, de la scène. Mm -hmm. le crédit DMC. Le crédit DMC, nous savons que c'était un crédit revolving. Un problème qui revient tout de l'argent mm sur la table, de l'argent qui tournait sous forme de prêts sans intérêt au niveau des, de l'éducation, au niveau même de, je dirais de tous ces agents. Mm -hmm. Je ne vais pas me limiter à l'éducation, oui. mais tous les agents de la fonction publique. Mm -hmm. Sous Abdou Diouf, l'enveloppe était de 2 millions 500. Mm -hmm. Abdoulaye Wade qui vient, qui dit que ce qui coûtait 2 millions 500 coûte aujourd'hui 5 millions. Il a porté l'enveloppe à millions. le président actuel, il vient, d'abord, qu'est-ce qu'il dit L'État n'est pas une banque, je vais arrêter le crédit d'MC. Et là, il a eu le courroux de ses agents. Finalement, il a fait volte-face pour dire on va faire une délocalisation de ces crédits d'MC au niveau des banques. Et nous vous disons que depuis lors qu'il l'a dit, ça fait maintenant quelques mois, rien n'a été fait. Et je vous dis que présentement, les DMC qui sortent, c'est ceux qui avaient déposé en 2010. Donc il y a un gap de 12 ans. Donc si on ne prend garde, l'écrasante majorité des agents de la fonction publique risque d'aller à la retraite sans pour autant bénéficier de ce crédit DMC. Mm-hmm. Là aussi, c'est une injustice que nos militants nous demandent d'essayer de récupérer. Mm-hmm. De régler. Mm-hmm. Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle les chargés de cours. Qui Ce sont des collègues de l'élémentaire qui ont eu des diplômes académiques supérieurs de l'université. Et souvent, je donne un exemple, un enseignant X qui est à l'école élémentaire dans une région ou bien euh, une souscription oui. où il y a un déficit de prof de maths, alors que lui, il a une licence ou bien un master en mathématiques. Mm -hmm. L'inspection d'académie peut le prendre et le mettre chargé de cours au niveau du moyen secondaire pour qu'il puisse dispenser les mathématiques. Mais ce qui se passe, ce monsieur, on va plomber ses avancements. Il ne pourra pas bouger parce qu'au niveau du logiciel, on le connaît comme instituteur. Donc il serait vraiment temps qu'il y ait une mise à jour, que les collègues qu'on prend comme euh, de cours oui. soient mis dans une situation objective afin que leurs privilèges ne soient pas perdus. Mm. Ça, c'était quelques points pour ne pas trop oui. caporaliser. D'accord. Si nous revenons un peu en arrière, au mois de décembre, justement, à date à laquelle s'est tenu euh, ce congrès, euh, vous, vous remplacez aujourd'hui Gougnagnan. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui laisse, donc, je dirais, une tâche indélébile sur euh, ce travail, euh, sur son mandat, je dirais, avec son équipe. Comment s'est passée justement l'élection ou le congrès euh, lors duquel vous avez été porté à la tête. Il y avait d'autres candidats, le bureau a été renouvelé. Euh, comment ça s'est passé Oui, ça s'est très bien passé. Et vraiment, c'est une occasion que vous m'offrez euh, encore une fois le camarade secrétaire général sortant, M. Elage Gougnagnan, qui a eu à abattre un excellent travail à la de l'Union des enseignants du Sénégal. Parce que n'oublions pas que nous sommes passés d'être vacataires ad vitam de collègues qui, sont, qui ont des postes de responsabilité, proviseurs, censeurs, intendants, principaux, etc. Mmh. Et ça, le devons Niang du Sénégal, qui avait à sa tête M. Elhaji Gounia Niang. Mm -hmm. Le congrès s'est bien passé et je pense même que euh, il y a eu un candidat qui finalement a désisté. Donc je peux dire qu'à l'unanimité, les collègues ont eu confiance à ma personne. D'accord. Et le bureau renouvelé euh, entièrement ou... Le bureau a été renouvelé, je pense, aux deux tiers. Et cette fois-ci, il y a une, innovation. Les collègues qui sont dans les régions, donc les responsables au niveau des régions, ont eu la possibilité de participer, d'être membres de ce qu'on appelle le secrétariat exécutif mm -hmm. national. Donc à ce jour, l'Union des enseignants du Sénégal compte des responsables au niveau national mm qui sont dans les, dans les régions. Mhm. euh, sur lequel vous comptez euh, justement faire focus euh, durant ce, ce mandat euh, d'Abdourahman Khan et ses, et ses, ses, ses collègues. C'est un leg que vous, a, donné l'ancienne équipe. Est-ce que vous pensez justement que ce, sera facile Parce qu'il y a des années, le DMC était là, certes, mais les autres, il y a beaucoup d'années que l'on entend parler justement de ces points et jusque-là, il n'y a pas matérialisation. vous savez, nous, nous disons que le syndicat, c'est une continuité. Et avec Gougnagnan, avec son équipe, et je précise que je faisais partie de cette équipe. Donc, quelque part, euh, je revendique aussi euh, les acquis. Les acquis oui. Vu que j'étais membre à part entière et membre du directoire de l'Union des enseignants du Sénégal. Et c'est une continuité. Demain, un secrétaire général viendra mm -hmm. avec une équipe et va continuer ce qu'on a eu à laisser. Mhm. Donc euh, c'est une continuité et on se, on félicite des acquis qu'on a eus et Inch'Allah, nous osons espérer que les collègues vont suivre l'équipe qui est actuellement sur place pour qu'on puisse engranger encore d'autres acquis. Mm-hmm. Et le chantier Le chantier, il a toujours été là. Hein. Vous savez, euh, à chaque fois qu'on a des acquis, ces acquis créent, créent encore d'autres revendications. Ça, c'est le fort du syndicalisme. Mmh. Et les chantiers sont là. Nous sommes en train de baliser mmh. et nous allons ratisser large afin d'avoir de, des acquis pour euh, mettre dans la besace euh, des enseignants. L'US est dans le G20. Euh, votre équipe a été portée euh, donc euh, dans un contexte il y avait une crise Euh, qui plongeait, je dirais, qui a démarré au mois de novembre, décembre, euh, janvier, entre autres, et qui a plongé le système scolaire euh, dans une crise profonde. Aujourd'hui, vous avez été élu en même temps dans ce contexte de crise. Quelle a été la première action justement de l'équipe de M. Kahn Notre première action a été de montrer notre ancrage et notre appartenance au G20. Et j'en profite pour faire un coucou à notre coordonnateur, M. de l'UDEN euh, Rénovation, mm -hmm. qui a eu à abattre aussi un très grand travail euh, lors de cette lutte. Mm -hmm. Et des autres secrétaires généraux ici qui ont été coordonnateurs mm -hmm. du G20. Mhm. Et je précise que présentement, l'US occupe euh, le poste de vice-coordonnateur au niveau du G20. Oui, nous sommes très organisés et comme le disait un ami, le G20 a été l'absent le plus présent autour de la table de négociation et on a l'habitude de le dire. Pourquoi Pourquoi Nous avons l'habitude de le dire, nous sommes là et nous allons veiller au grain. Mm-hmm. Nous allons veiller à ce que les revendications, toutes les revendications soient posées sur la table. Mm -hmm. Nous allons veiller aussi à ce que les engagements du gouvernement soient respectés à la lettre. Mm-hmm. Et ça, nous nous portons garant. Nous sommes les soldats vraiment du protocole d'accord. Et justement, sur ces grèves, on avait entendu le, le G20 dernièrement, je dirais, parce qu'il y a eu, euh, après cinq plans d'action, euh, il y a eu d'autres qui ont démarré à décréter leur plan d'action. Qu'est-ce qui a fait euh, ce silence Qu'est-ce qui a causé justement ce silence du G20 Bon, ce n'est pas un silence. En réalité, nous avons beaucoup communiqué, nous avons beaucoup écrit aussi. Nous, il ne faut pas oublier que nous sommes des syndicats syndicalistes, nous sommes légalistes. On avait un, déposé un préavis de grève, on attendait juste que ce préavis de grève entre euh, expire pour que nous puissions euh, dérouler nos, nos, actions. Et je mhm. pense qu'on l'a fait de fort belle manière. Il y a eu justement décrété trois plans d'action Non, je pense qu'il y en a eu quatre ou cinq. Quatre ou cinq. Oui, qu'on a eu à faire. Et qui ont été finalement levés à la suite. Euh... euh je ne dirais pas levés, mais je dirais suspendus, mmh. du moment que le protocole d'accord n'est toujours pas respecté. Mm -hmm. Il y avait un échéancier que nous attendons. Le premier échéancier, c'était en fin avril. Nous attendons voir si tout se passe bien nous allons constater et euh, prendre nos responsabilités. Si ça se passe mal, nous allons constater et prendre nos responsabilités aussi. N'oublions pas que l'année scolaire n'est pas encore épuisée, il y a les examens et les compositions qui pointent à l'horizon. Durant, durant, ces mouvements d'humeur, ces plans d'action euh, décrétés par le G20, euh, est-ce qu'il y a eu dialogue Parce que euh, vous l'avez signalé tout à l'heure, le G20 n'est pas à la table de négociation, c'est l'absent le plus présent. Mais il n'y a pas eu d'interlocuteur avec qui le G20 a eu à dialoguer durant euh, ce plan d'action vision ou ses plans d'action, je dirais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi le G20 a jugé nécessaire de lever le plan d'action ou les plans d'action mm -hmm. Ou c'est parce que le ministre ou la tutelle, les autorités ont donné une garantie à l'autre faction, euh, le G7, qui était également en mouvement d'humeur Bon, vous savez, en réalité, c'est malheureux, mais l'autorité n'a pas compris que le dialogue social était inclusif. Certes, il y a eu les élections de représentativité. Nous étions demandeurs, nous, Union des enseignants du Sénégal. Seulement, il y a eu quelque part où le bas a blessé. Vous savez, moi, je ne peux pas dire que je suis un syndicat représentatif. Je vous représente, je ne viens pas prendre vos préoccupations, je ne vous rends pas compte après négociation. Vous ne vous laisserez pas faire. C'est ce qui a fait que le G20 est né. Mais en réalité, le G20 n'avait pas sa raison d'être si le G7 avait bien joué sa partition. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas eu également de faux départ à la suite des élections de représentativité, justement Je pense qu'il n'y a pas eu de faux départ. C'est le G7 qui n'a pas joué son rôle. Pourtant, il y avait des, des médiateurs de bonne volonté qui ont pris leur bâton de pèlerin, comme Mamadou Diouf, par exemple, pour réunir tous ces syndicats autour d'une table mm-hmm. ou euh, autour d'un cadre. Mais vous savez, quand on pense qu'on est le nombril du monde, on ne va jamais s'asseoir autour d'une table. On pense toujours qu'on est sur un piédestal. Vous faites allusion à qui Je fais allusion aux essais. S'ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres, c'est parce que nous n'avons rien compris. Mm -hmm. Le G20, côté nombre, nous sommes beaucoup plus représentatifs que le G7. Mm -hmm. Ça, c'est un constat. Les pourcentages sont là, ceux qui ont voté sont là, les nombres sont là. Mm -hmm. Scientifiquement parlant, avec la loi des grands nombres, le G20 pèse beaucoup plus lourd que le G7. Mm -hmm. Donc, je pense que ce qui a toujours fait la force mm-hmm. des syndicats de l'enseignement. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Nous, nous disons que c'est vraiment regrettable au finish. On a vu G2, G5. Non, c'est regrettable. La force, c'est quoi Un enseignant du moyen secondaire ne doit pas être indifférent à une injustice dont est victime un collègue de l'élémentaire. Mm-hmm. Un collègue de l'élémentaire ne doit pas rester insensible à une injustice dont est victime le collègue du moyen secondaire. Mhm. Nous sommes tous des enseignants. Mhm. C'est ça notre, le ciment qui nous lie. il faut qu'on soit solidaire les uns les autres. Mhm. Il ne faut pas qu'on pense que une branche est supérieure à l'autre. Non. Mm -hmm. Ce qui nous meut, c'est le système éducatif. Mm -hmm. Nous sommes des enseignants, restons des enseignants, soyons solidaires les uns les autres. Et tant que nous ne pourrons pas paralyser le système du préscolaire à l'université, on ne fera que des grèves sporadiques, des grèves où on va lever le mot d'ordre de façon anarchique, des grèves où l'État va signer des protocoles d'accord qu'il ne va pas respecter ou bien qu'il va respecter partiellement. Et ça, c'est regrettable. Et nous, unir le système éducatif les syndicats du préscolaire à l'université, mm. ça va, va permettre, permettre, les grèves soient les plus courtes mm. je pense que on arrive les forces, à défaut d'unité organique, mm -hmm. qu'on ait une unité d'action, mm -hmm. j'en suis sûr que nous ne ferons table pour signer un protocole d'accord qui sera appliqué pour l'instant, vous comprendrez pourquoi le mot d'ordre a été suspendu, pas arrêté ni levé, mais suspendu. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons euh, le sieur Abdouarman Khan. Il est le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants euh, du Sénégal US. Euh, Monsieur Khan, vous l'avez dit, euh, il y a eu une levée ou une suspension, je dirais, du mot d'ordre de la part du G20. Euh, une grève, il y en a eu également. Des ponctions de salaire, euh, il y en a eu après. Est-ce qu'au niveau du G20 également, il y a eu des enseignants euh, qui ont été victimes de ces ponctions Tout à fait, il y a eu des enseignants qui ont été victimes. Mais vous savez, nous, vous savez, quand on va en guerre, on n'a pas le droit de dire qu'il ne faut pas me toucher euh, les oreilles, il ne faut pas me toucher les bras. Non, on va se battre. On fait tout pour gagner. Mais vous savez aussi que nous, nous savions qu'on allait être victime de ces ponctions. C'est normal. Nous sommes dans notre droit en faisant la grève. L'État est dans son droit en faisant des, des ponctions de salaire. Mais il faut toujours avoir en ligne de mire que tôt ou tard, nous serons autour d'une table pour fumer euh, la calumet de la paix. Et là, nous, nous savons que s'ils attendent de nous qu'on prolonge l'année scolaire ou bien qu'on fasse des cours les, les samedis après-midi, les mercredis après-midi, euh, pour que ça soit possible, il faut qu'on nous rende l'argent qu'on nous a coupé. D'accord. Donc, euh, c'est maintenu ce, ce mot d'ordre décrété également. Mais bien Donc, sûr. Vous pas faire ah, mais Ça, c'est un sacrifice que nous allons faire sur nos heures où on devait se reposer. Maintenant, s'ils veulent qu'on fasse ce sacrifice, ils ont qu'à nous retourner l'argent qu'ils nous ont coupé. Nous, nous sommes des patriotes, nous avons été formés, nous sommes des professionnels de l'éducation. Mm -hmm. On sait comment résorber ces heures qu'on a perdues. Mm -hmm. Même si vous n'avez pas été à la table de négociation, vous, vous savez euh, justement les termes d'accord qui ont mené à cette levée euh, justement euh, de ces plans d'action qui ont plongé l'école euh, dans une crise profonde. Avez-vous foi, pensez-vous, qu'aujourd'hui l'État ne va pas une fois de plus euh, vous mener sur ce chemin du chat de la souris. mais vous savez comme on le dit en wolof ku la dig ndékki joxu la. su la diggee reer su la diggee añ soo amee xel tuuti di nga dute. Et nous sommes en train de douter. Mais comme on dit, lu ci kalam raw li bët. Nous sommes en fin avril, dans quelques jours. On va voir s'ils vont respecter les termes du protocole d'accord. Mm-hmm. De toutes les façons, ayons en ligne de mire que les examens, les compositions sont pour bientôt. Et justement, qu'est-ce qui a convaincu euh, ce corps professoral ou ces enseignants, ces syndicats d'enseignants qui ont décidé euh, de lever le mot d'ordre

il y a une augmentation. C'est sur mm-hmm. le 1er mai, Le 1er janvier 2023, il y a quelque chose qui doit Le 1er janvier il y a quelque chose qui doit entrer. Mm -hmm. De même que la revalorisation de l'indemnité spéciale d'enseignement, à la hausse à hauteur de 50%, qui passe de 50% du salaire indiciaire à 60% du salaire indiciaire. Mm -hmm. On a dit que ça va être appliqué le 1er

On va voir ce que ça va donner. Et c'est voilà pour l'indemnité. Euh, ils ont dit qu'ils ne vont plus maintenant imposer les indemnités de logement. Ils ont dit que c'est à partir du 1er mai. Mm -hmm. On verra, on va les prendre au mot. Mm -hmm. Et nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin. Mmh, mmh. Le chef de l'État a, lors d'un conseil des ministres récent, euh, instruit euh, le ministre de l'Enseignement à euh, continuer le dialogue entre les différents acteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État est en train de préparer le 1er mai pour anticiper c'est de la poussière aux yeux, ça on est habitué. C'est de la communication, c'est pour l'opinion nationale nationale et internationale. Nous, nous savons que ça, nous ébranle pas. a pas Mais il n'y a absolument rien. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que le G20 était le présent le plus absent. Là, je vous dirais que le ministre de l'Éducation, c'était le présent le plus absent. Mm-hmm. Il était là, mais en réalité, qu'est-ce qu'il a eu à faire Absolument rien. Mm-hmm. Ce sont des gens qui attendent que les patates pourrissent pour qu'ils essayent de réagir. suis vraiment regrettable. On va vers des élections de représentativité. Normalement, c'était de cette année 2020 qui a été retenue. Euh, est-ce que vous êtes euh, dans les tractations Nous y sommes d'ailleurs. Euh, normalement, ça devait se faire en avril. Donc, euh, je peux dire que le G20 est dans l'illégalité. Mais bon, le G7 du moins est dans l'illégalité vu leur mandat a expiré. Mm-hmm. Mais on va faire avec. Ce sont des gens qui sont toujours l'État dans l'impréparation. Il y a de fortes chances qu'ils nous envoient au calendrier grec. On va les surpouvoir. L'essentiel, nous, au niveau du G20, les erreurs qui ont été faites par le G7, nous allons tout faire pour ne pas refaire ces erreurs. Quelles qu'on sur un piédestal qu'on regarde les gens de haut. Et c'est vraiment regrettable. Nous, le G20, nous allons nous organiser. Et nous allons faire comme les politiciens, dire que nous allons envoyer une liste unique pour le G20 au niveau de l'élémentaire, pour le G20 au niveau du moyen secondaire, etc. etc. Par collège. Par collège. D'accord. Et ça va représenter le G20. Wow. Ça, c'est une innovation. C'est pour aller en force et euh, niveau de ses représentants, comme on dit. Pour être plus représentatif, pour ratisser large, informer et vrai, c'est très important. Mhm. Parce que vous savez, nous, niveau de l'US, au niveau du G20, nous la solidarité. Mm la loi des grands nombres. Mm -hmm. organique, qu'il y au moins des unités d'action. Mhm. Et pense que le G20 va montrer le bon chemin. Vous l'avez dit, euh, aujourd'hui le G7 semble être sur un piédestal, euh, mais sur son mandat, vous pensez qu'il a euh, eu à faire quelque chose euh, justement, sur le plan des revendications, des négociations. Mais il pouvait faire mieux, vu à la dernière minute, il y a eu une scission. G2, G20, G, euh, Ce qui ne peut manquer dans, le syndicalisme enseignant. Mais c'est malheureux. dans le grand cadre, le, le CUSE, entre autres euh, cadres qui ont vu le jour et qui ont fini par séparer. Et on ne peut que regretter ce qui se passe. À quand l'unité syndicale À quand une unité d'action syndicale mm -hmm. À quand une trêve dans les grèves mhm. C'est possible. Mhm. Vous savez, nous, nous sommes des syndicalistes, mais vous savez, sans école, il ne saurait y avoir de syndicats ou de syndicalistes. Donc, on a intérêt à bien sauvegarder, à bien tenir notre, notre de travail, oui. qu'est l'école. Mm -hmm. Et pour cela, quand même, on doit se départir des fois de nos égaux mm -hmm. pour l'intérêt général.

Bon, là, on est en train de se réunir la partie gouvernementale. Et nous, G20, on des propositions. Nous sommes de voir. La formule euh, qui s'y est n'est pas encore trouvée. Et je vous dis, à ce jour, les dernières élections de représentativité, jusqu'à présent, aujourd'hui le 12 avril 2022, les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés. Donc c'est à vue. Euh, selon vous, quelle est la pertinence de ces élections de représentativité Ces élections de représentativité sont, sont très pertinentes. C'était pour rationaliser la table de négociation. Vous savez, avant, il y avait plus de 50 organisations syndicales. Imaginez négocier avec plus de 50 organisations syndicales dans une salle de conférence. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Non, ce n'est plus le cas parce qu'il y a le G7. Il y a des cadres. Il y a les cadres. Mais les cadres. Il y a le G7. N'empêche que chaque syndicat, euh, s'il veut aller en mouvement d'humeur, va y aller. La preuve, vous avez vu le G2 avec le G3, euh, ils se sont organisés par collège pour aller faire leur, leur, leur, leur, leur plan d'action. Mais le, le, droit de grève est reconnu par la Constitution. Alors, donc, dans ce cas, les élections de représentativité n'ont rien changé. C'est parce que ça n'a pas été bien borné. ces élections n'ont pas été bien bornées. Ça se comprend, c'était une première au Sénégal. Mais je pense qu'avec le temps, on va bien borner, bien organiser ces élections de représentativité. Pourvu que, de l'autre côté, l'État qu'il daigne vraiment nous écouter et prendre en charge nos suggestions et propositions. Mais déjà, je viens de vous dire que le G20 va proposer des collèges. Mhm. Et dans chaque collège, le G20 posera. c'est un exemple. C'est un exemple. Vous savez, le G20, c'est l'écrasante majorité des syndicats. Si on arrive à nous organiser et que chaque collège, il y ait le G20, Si on va en négociation, les autres ne pas en grève, n'iront pas en grève, mhm. mhm. parce qu'ils sont derrière nous, mhm. qui nous suivent. Mais ce qui s'est passé, de cette organisation syndicale qui vont en négociation, on laisse les autres en rade sans prendre en charge leurs préoccupations, sans pouvoir leur rendre compte de ce qui s'est passé durant et, et après ces négociations. On, on voulu ça, on voulu que les autres leur, euh, les représentent, qu'ils coordonnent avec les autres, qu'ils s'asseyent autour d'une table. Est-ce que les autres également Mais j'ai vous faire une petite révélation. Mm. Ça doit faire peut-être maintenant trois ou quatre mois. on a été reçu, le G20 a été reçu par le G7. Je disais le G5. Mm-hmm. Pour essayer de voir comment faire quand même pour qu'au moins que nous sentions, nous, g que le G7 nous représente. Ça, je pense qu'il n'y a pas plus grande preuve oui. de maturité. Mm-hmm. Ils ont pris acte. Mm-hmm. Ils nous ont dit, sachez que si ça tarde, la faute nous incombe. Et à ce jour, rien n'a été fait.

euh, il y a cette représentativité, mais il y a également qui va aller avec qui. Et aujourd'hui, on semble voir, au euh, lieu de, de, de, d'une divergence d'idées, des problèmes personnels. D'autres ne peuvent plus s'asseoir autour d'une table et pourtant, ils sont des syndicats qui, qui luttent pour la même cause. Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est, c'est regrettable. Tout ça, c'est ce que je vous disais. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait également un autre problème à régler après ces élections de représentativité Parce que les donnes vont changer. Certaines, mm-hmm. ceux qui étaient de l'autre côté peuvent venir de l'autre. Et cela euh, de même. Donc, il y a interchangeabilité probablement. Mm-hmm. Alors, si par exemple le G20, euh, certains prenaient le dessus sur d'autres et doivent aller ensemble avec d'autres du G7, comment ça va se passer Nous, au niveau du G20, on, a, on va signer des chartes. Je donne un exemple. Si un syndicat X du G20 doit être autour de la table. Ce syndicat X se devra, avant d'aller en négociation, de voir les autres du G20, de prendre les préoccupations et de poser ça sur la table. Après négociation, de, rendre, de revenir autour de la table du G20, de rendre compte. C'est très facile. C'est juste un gentleman agreement qu'on doit respecter. Mm C'est très facile. Si vraiment c'est l'école sénégalaise qui nous intéresse, vraiment, bon Dieu, c'est facile, à condition de mettre à côté nos Pourquoi le syndicalisme est, est enseignant, je dirais, est arrivé à ce stade Parce qu'on a vu que euh, même les transporteurs se sont réunis autour d'un cadre pour aller ensemble tout à l'heure, mais aujourd'hui, pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade Vous savez, c'est le milieu intellectuel, on est des intellectuels, ça réfléchit trop, ça cogite trop, ça cherche trop de scénarios. C'est ce qui apporte ces genres de dérives. Mais nous pensons que c'est dans l'ordre naturel des choses et nous pensons que quand même avec notre expertise, notre expérience, quand même les angles seront arrondis afin qu'on puisse cheminer ensemble, avoir la même direction pour sauver l'école sénégalaise. Il faut noter que l'école sénégalaise est en péril. Mm -hmm. Ça, il faut le reconnaître. Mm -hmm. Alors, au niveau de l'US, comment ça se prépare euh, pour ces élections de représentativité Mais vous savez, euh, nous sommes en quête de militants. Nous faisons des tournées. Comme vous pouvez le voir, nous, nous, nous réclamons un syndicat de développement. Mm-hmm. Donc nous faisons tout pour que le syndicat soit attrayant, pour que les collègues puissent s'y épanouir sur le plan social. Il n'y a pas que les revendications, mm-hmm. il y a le volet social. Nous, notre objectif, chaque militant de l'Union des enseignants du Sénégal, doit avoir son terrain, doit avoir son toit. Et nous y œuvrons présentement. Récemment, on a signé un protocole d'accord avec une société immobilière mm qui mettra à notre disposition des milliers de parcelles à Tchéo vers Singa, mm mm-hmm. qui est un site d'avenir. Des parcelles qui vont nous revenir à 2 850 remboursables sur 60 mois. Donc, sans apport. Non, non. Sans apport personnel. ça va être des mensualités de 57 500 sans apport. Et au finish, il y aura un bail. Et maintenant, charge au promoteur immobilier d'accompagner le réservant pour avoir un titre foncier individuel. Là, c'est une auto-école. Nous avons des protocoles d'accord avec euh, une auto-école de la place pour euh, la formation, pour l'obtention du, du, permis de conduire pour les militants de l'Union des enseignants du Sénégal. également, c'est sur la base de cotisation. C'est Vous savez, une auto-école présentement, avec les taxes de l'État, c'est pas moins de 250 000. Mmh. Mais avec nous, vu qu'on a signé pour un grand nombre, ça revient à 80 000 francs sur trois mois. Donc tout ça sont des facilités que nous, offrons à nos militants mm. afin de les attirer. Qu'ils sachent que l'US n'est pas seulement un syndicat de revendication, <laughs> mais nous nous réclamons être un syndicat de développement au service exclusif des militants de l'Union des enseignants du Sénégal, mm-hmm. en particulier, et des enseignants en en général. Et donc en évaluant sur la base de ces programmes que vous offrez à ces enseignants ou que vous leur proposez euh, comme vitrine, modèle de vitrine, euh, est-ce qu'il y a eu euh, justement des adhésions Ah oui, ça a vraiment, machallah, il y a eu des adhésions, il y a eu des promesses d'adhésion. Et nous sommes là, nous les attendons pour les accueillir à bras ouverts. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui euh, ne sont affiliés à aucun syndicat parce que euh, certains confient qu'ils ne sont plus d'accord avec la manière de faire le syndicalisme enseignant. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, peut changer la donne mais vous savez, c'est malheureux de sortir d'un syndicat parce qu'on est contre le mode de fonctionnement. Non. La meilleure manière de changer ce mode de fonctionnement, c'est d'être à l'intérieur et de se battre, de se positionner et de se battre afin de changer ce qui s'y passe. Mais pas de sortir. Quand on sort, on ne peut plus rien changer, vous n'êtes plus dedans. Mm Donc autant rester et se battre mm-hmm. afin de changer ce qui s'y passe. Mm-hmm. Parmi d'autres défis, euh, a l'opinion à une lecture ou à une appréciation de l'enseignant, quand il y a toujours négociation, on entend parler d'argent. L'argent, l'argent. Comment faire aujourd'hui pour redorer ce blason de l'enseignant auprès de l'opinion ben, déjà, ça, c'est un des tares qu'on met sur notre dos. À savoir, les enseignants revendiquent toujours l'argent. C'est malheureux. c'est l'autre partie qui fait croire cela à la population. Mm-hmm. Mais vous savez, nous sommes des Sénégalais. L'autre partie ne dira jamais que les syndicats quand même euh, à ce qu'on supprime les abris provisoires. Mmh. L'autre partie ne dira jamais que les syndicats demandent à ce qu'il y ait des toilettes pour les établissements de l'élémentaire, du moyen, secondaire, technique comme général. Ils ne diront jamais qu'il y ait des toilettes pour les filles, des toilettes pour les garçons. Ils ne le diront jamais parce qu'ils savent qu'ils devaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, pour se dédouaner, ils diront toujours que ces enseignants, demandent toujours de l'argent. Mais nos revendications ne sont pas seulement pécuniaires. Je suis désolé. <laughs> Mais c'est vrai que nous demandons de l'argent. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des diplômés sénégalais. On nous a pris dans le système pour un travail et un travail que nous faisons de fort belle manière. Donc nous avons le droit de demander à ce que notre fonction soit revalorisée, mhm. qu'on nous mette à notre place, à la place que nous, où nous devons être et que nous ne devrions pas quitter. C'est un constat amer qui est là. Mhm. nous constatons, mais nous savons que l'opinion est en train de comprendre la stratégie de l'autre côté. D'accord, mais euh, jusque-là, pas de plan d'action pour redorer également ce blason, non Ben si, mais vous savez, on ne peut pas tout avoir tout de suite et maintenant. On vise le ciel, en espérant avoir le plafond. Une fois qu'on a le plafond, on va essayer d'avoir les nuages. Ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à abstention de tout ce qu'on veut. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons euh, Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. Monsieur Khan, euh, cette dernière partie, nous allons la consacrer à la qualité de, de, de, de l'enseignement ou de l'éducation. Euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'allez pas euh, faire des cours mesures de renforcement ou prolonger l'année euh, parce que l'État, en contrepartie, a fait euh, un geste euh, de l'autre côté. Euh, aujourd'hui, est-ce que ces, ces apprenants auront euh, ce bagage intellectuel euh, prérequis Ben, ils l'auront. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos. Vous savez, nous, on a été formés pour enseigner. Nous sommes des professionnels du système éducatif. Quand même, nous avons des canevas pour euh, essayer de résorber euh, ces heures qui ont été plus ou moins euh, perdues. Mais, aujourd'hui, il y a fonction de salaire, ce qui change tout. Il y a fonction de salaire, ce qui change tout, tout à fait, parce que quand même, euh, il y a des efforts que nous ne prendrons de nous assez responsables pour comprendre que l'argent qu'ils nous ont pris, ils doivent nous le retourner. Ou bien les heures qu'ils vont nous faire travailler, parce qu'une fois qu'ils nous prennent notre argent, on est quitte. On a fait la grève, on nous a coupé. Ok, mais il ne faut pas nous demander plus. Si on nous demande plus, soit on nous retourne l'argent, ou bien on nous paie le plus qu'on nous a demandé. Donc les, les, les apprenants vont payer les pots cassés. Mais vous savez, les apprenants, ce sont nos enfants aussi, hein, nos neveux, nos frères, mieux nos élèves. mais vous savez euh, sama bopp ma la gën a lu justement ce qui aura euh, des conséquences euh, sur euh, le système parce que ces apprenants déjà en 2020 euh, avaient eu des heures réduites à cause de la pandémie d'autres qui étaient en classe intermédiaire ont écourté l'année scolaire et ceux-là même sont en terminale cette année certains font la troisième ces lacunes qu'ils vont traîner durant des années Euh, Est-ce que cela également c'est bon pour notre système Du tout. Vraiment, c'est pas bon pour notre système. C'est pas bon. Pour nous, si ça ne dépendait que de nous, il n'y aurait même pas une heure de grève par année. Mais vous savez, il y a une mission qui révolue à l'État. C'est sa mission régalienne. Constitue les responsabilités que chacun assume. Euh, il y a également, euh, toujours sur cette qualité de l'enseignement, euh, c'est prenant, euh, depuis quelques années, on voit le taux de réussite aussi bien au baccalauréat euh, qu'au BFM chuter. On apprend tout à l'élève pour jusqu'en jusqu'à l'université et une fois à l'université, l'élève se spécialise. là aussi, pense qu'il y a des professionnels de l'éducation qui sont en train d'y réfléchir. Mm-hmm. Et nous pensons que quand même euh, le système éducatif doit être revu, tant au niveau de l'élémentaire, moyen secondaire et de l'université. L'enseignement est trop général. Moi, je pense que nous sommes à l'ère où l'élève doit connaître un peu, mais bien connaître ce qu'il apprend. C'est mieux que de connaître beaucoup, mais superficiellement. Ça, c'est, à mon humble avis, quand même, euh, le système doit Et vous pensez que cet État est en mesure de, de, de le faire euh, ou il y a également ce dictat des, des, des, des bailleurs, entre autres euh, systèmes auxquels nous sommes rattachés, qui est euh, la France, je dirais. Oui, même là-bas, le, le, système éducatif est en train d'être revu. Il n'est pas le même ici également. Comme Très bien, donc nous, nous avons intérêt pour ne pas être à la traîne de revoir ce système éducatif afin qu'il soit euh, performant, beaucoup plus performant qu'avant. Un autre aspect, d'autres pensent que la langue maternelle peut euh, être d'un grand apport pour ces élèves, ces apprenants qui aujourd'hui ne lisent plus et euh, le français qui est la langue euh, avec laquelle nous apprenons n'est pas bien maîtrisé par les apprenants. Vous pensez également que cette langue maternelle peut bien apporter, peut beaucoup apporter

le français là maintenant. regardez dans, quel, dans les pays où on, les, on parle le français, oui. ils sont plus nombreux. Donc il faut pas que ce complexe-là d'assimilation, d'assimiler, on doit se le refuser. La langue, c'est juste un médium de communication. Mm-hmm. Mais si on pouvait faire un, un, un, cours de mathématiques, je me souviens, il y a le professeur Sakhi Thiam qui le faisait. Ou Marito. Ou qui parlait de, de, de, de, de Mbege pour dire un cercle. de Pegumbeke pour dire de la tangente, ainsi de suite. Moi, je me souviens en, en terminale, mon prof de filo disait que li nga nàmp soo ko mënoon lakk làkk soo ko mënul làkk bu baax tubaab bu jub doo ko mën. Mhm. Et moi, je suis pour cette théorie. Et vous pensez que les autorités <laughs> ne connaissent pas ou ne le savent pas? Mais ces autorités-là ont même des complexes pour parler leur langue maternelle. Pour eux, s'ils ne parlent pas français, ils n'ont rien dit. Puisque chaque acteur a ce même langage, bien sûr, nous avons eu à échanger, pense que ce serait d'un grand apport pour ces apprenants. Alors, euh, je suppose que le ministre également est du même avis. Alors, euh, sont-ils vraiment libres de leur politique Bon, libres. Est-ce que nos gouvernants sont libres Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Nous sommes sous la tutelle de la France. Mais même la de système, alors pourquoi pas nous Bon, vous savez, des fois je dis qu'on imite et on imite très mal. C'est malheureux, mais nous on, le Sénégalais aime imiter et on imite très mal. Et souvent on n'imite pas ce qui est meilleur dans l'autre système. Mm-hmm. Et je pense qu'il serait temps vraiment qu'on sache imiter. Mm -hmm. Alors, quelles sont les perspectives de l'US pour terminer, pour clore euh, définitivement cette émission Les perspectives de l'US, c'est les enseignants soient remis à la place, à place, qu'ils soient dans de bonnes conditions, que les chaque enseignant puisse avoir un chez-soi. D'autant plus qu'il y a des études de la maison. Mm-hmm. Donc imaginez quelqu'un parce qu'il n'a pas, qui quitte sa maison pour aller faire cours, il a dans sa tête sa location, mm -hmm. ses factures d'électricité, etc., etc. je pense que ce monsieur-là, ou bien cette dame, une fois en classe, il ne sera pas performant. Mm -hmm. Donc, nous devons tout faire pour que les enseignants soient performants dans leur lieu de service. Et pour cela, on doit les mettre dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Et que les parents sachent qu'ils se rappellent aussi qu'ils nous ont donné ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leurs enfants, pour qu'on puisse les éduquer et transmettre le savoir. Quel est le constat Pourquoi cette, cette invite Je le dis à chaque fois, vous savez, nous sommes des Sénégalais. Autour d'une table ou bien d'un bol, j'ai fait un clin d'œil au bas et au serreur. Quand je dis bol, certainement, ils pensent, il pense <laughs> au Tchéboudienne. Très bien, et, et, et, aussi. <laughs> donc euh, le parent qui dit les enseignants xaalis rek jàngale tuñu xamuñu dara devant l'apprenant vous pensez que cet apprenant là il va rester quel comment va-t-il regarder son enseignant est-ce que vous pensez qu'il va respecter son enseignant raison pour laquelle on voit ces dérives des élèves qui qui se battent avec leur professeur qui les agressent, oui. les élèves qui agressent leur professeur mais c'est parce que le respect qui leur est dû ils ne l'ont pas à la maison. Les parents eux-mêmes n'ont plus d'égard pour ces enseignants. Du coup, par effet ricochet, l'élève, l'apprenant ne peut pas respecter son enseignant. Et ça, vraiment, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Il faut que l'enseignant soit remis à sa juste place. Et ça, nous allons y œuvrer. Et aussi, euh, faire, alors je ne peux pas terminer sans parler des collègues de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un appel que nous faisons aux autorités, surtout au ministre Damjob, qu'ils sachent qu'il y a des enseignants du moyen secondaire de l'enseignement technique qui, jusqu'à présent, n'ont pas de filière, n'ont pas de formation dans leur filière, à savoir la bijouterie, mm -hmm. à savoir le traçage, L'informatique, pour ceux qui ont le niveau bac et le niveau licence, il n'y a que la maîtrise qui a la formation. Inviter aussi le ministre Damdiop à tout faire pour que le centre de formation artisanale CFA revienne au niveau de son ministère et qu'on l'enlève du ministère de l'artisanat du moment que ce sont des enseignants qui sont là-bas et des enseignants qui ont pour ambition d'aller dans d'autres centres, d'aller dans d'autres établissements pour y dispenser des cours. et aussi inviter les Sénégalais à savoir que l'enseignement technique est là et c'est un bon pôle de développement. Vous faites allusion aux ISEP Je fais en, euh, plutôt aux ISEP, je fais allusion au centre de formation de l'enseignement technique, je fais allusion euh, à la série STEC qui a remplacé la série G, etc. Mhm. etc. Donc il faut qu'on compte sur l'enseignement technique pour le futur du Sénégal. D'accord. Et là également, est-ce que ça avance Est-ce qu'il y a des... L'enseignement technique. Des suivis, oui. Après le bac, des filières euh, pour la formation Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des BTS, à part euh, la faculté des sciences économiques Sur le niveau supérieur, peut-être les écoles de formation, le privé, pour les masters et consorts. Mais il serait temps que l'État du Sénégal, quand même, euh, daigne mettre un, le, le, focus sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Mmh. Monsieur Kane, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plus Merci beaucoup, Elisabeth. Le plaisir est partagé. Mhm. Merci beaucoup. Un clin d'œil euh, surtout à tous nos collègues qui sont à l'intérieur du pays et à Dakar. Et surtout un clin d'œil pour nos dames, nos valeureuses dames qui sont à la maison, qui nous ont vraiment accompagnés durant la vacation, la contractualisation à un moment où c'était extrêmement difficile. Mm Donc, euh, elles nous ont fait confiance, elles nous ont épaulés. Et là, vraiment, c'est une occasion qui m'est offerte pour les remercier au nom de tous les enseignants. Merci, mesdames. Nous vous aimons. <laughs> On espère que le message est passé. Euh, voilà, Monsieur Abdourahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, qui était euh, ce matin dans l'encre et la a été un de plus de vous accueillir émission. À vous, chers auditeurs, de vous servir. On vous retrouve le samedi prochain la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MFM.